leen ñëwee. waaw moom Bakar dal lañ ñëwee. ah dañu dal. ngeen di bëreeg laaj di gerte. waaw sëñ Fallou. ñun dañaa saada suñu genre combat ba mu bëri taxaw suñuy miin. ah moom day geer ñun dañaa saada suñu genre combat ba mu bëri taxaw suñuy miin. ah fu fekkee mu dégg yaa antal mi na jami na naka sa bayru tax. waaye li wax nee naa la gumba tal na leneen lu dul tëb teen. nga ne gumba tal na leneen lu dul tëb teen. suñu mag la. Ah, dañ koy jox cër bu mu moom. mais bu fi ñëwee mu fekk fa lu ne wàng. mais Lac de Guiers poids bi du leen te du leen tënee. jaaxal ñu laa la woon ñu ñooy kii ñu xanaa yow. Ah! billaay wallaay tallaay yàlla ñu yàlla suturaal may ñu ndam. mais bis bi diisu ci yow yàlla mi coow li bari na de. lan mooy coow. ñoo tax ñu ne coow waaw. ñu si tax ëpp Lac de Guiers doole. ëpp ñu yàlla moo am doole. yàlla ñu yàlla suturaal may ñu ndam. te Lac de Guiers na waxu xolam bu nekkee daf ñaame rek. nga réew na waxu xolam. def na ko de borom benn ko na waxu xolam. day xasan. fii bu ñëwee bu nekkee day dégg daal day dégg daal par force. si kàttanu yàlla. mais est-ce si te mën na ko déggloo daal yi. mu ñëw da ngay dégg si kàttanu yàlla rabu samaatu waat moo fi nekk laa la wax jàmbaar ji dañuy ñaan yàlla nañu yàlla may ndam. mais bu arbitre soufflé. bu arbitre soufflé ñu def tekk tekk woon ni yoon mi mais bu nee rambax ma dégg pàccax. bu la dëggee attaqué Siteu. mu fekk fi lu ne waŋ. nee naa la loolu maa moom tuq sa bënn la saañ ba réer. waaw ah! barki maam Seera Fall. loolu amoon naa tukkante ba la de. bi diis na ci yéen. nee naa ko trabaxa dineeru la. coow li bari na. booy lu ñun coow daf ñoo arrangé. la dëggee daa mu leen meree. lan la ñu meree. ci coow ba ma jigéen ko tuddee. waaw moom la. waaw ñun ay eh. nee naa la Siteu bu njooloon soofoon damay dagg tànk yi def ko tungu ne. bu njooloon soofoon tànk def ko tungu ne. mais njooloon daal nee naa la doomu ñama la ko jëndal ko xet ndax njool na ba pare. a ah! a doomu ñama ko jëndal ko xet ndax njool na ba pare. Ah! bu njooloon soofoon dañuy dagg tànk def ko tungu ne. Ah! la. mais bu ñu xeexee. nee naa la di dëgg da kuy xeex ak mbooloo benn nit jaaxalu la waay. kat mooy xeex ak mbooloo si tëj. yàlla. yàlla ñu yàlla suturaal. mooy ñu ndam si bar sëñ bari Sénégal ñëpp dan Lac de Guiers ëpp si te doole. waaye yàlla ji. yàlla moo am doole. bu nekkoon doole Bombardier kenn ko daan si làmb ji. waaw si xel laay wax ak yow. yàlla na yàlla suturaal kan. ñu wax Lac de Guiers moo dàq si te. xam ngeen yàlla mën na yéen xamu yan mën xamoo leen ko. moo tax ñu laaj la ko yow mi nga xam. leen seen i verre wala yéen naaj lu mu tàng moo tax ngeen wax ni. mais mais mais yàlla yàlla yàlla dañ ne Al Siteu ba mu daanee bëre ba léegi mi ngi doog am adversaire bu mel ni Lac de Guiers. Lac de Guiers jaaxaluñu. Zarko wax gën a dëgër bopp. waaw te bu mu ñëwee la la rek. daali si xel maa ngi dem. ah ñun ñetti jaaxal leen eh, kay kay yàlla mi. Siteu Siteu lamb ji li ko war mooy mu ñëw jël temps am toog xaar Lac de Guiers moo soxla Siteu soxlawul mais mais Siteu moom ñëpp xam nañ ni ñëpp xam na ni Lac de Guiers bëre Siteu tey ji man moo ko doon conseillé dama naan ko jëlal sa temps ci làmb ji bul yàqamti dara mooy mooy làmb bërki démboo njaay bi rek Ama bal Modou Lo Ama ku la daan Modou Lo du gàcce ndax Modou Lo daan na fi ku ne waaye après bu la Modou Lo tey xam lan moo doon bett nit ñi Ama Baldé daan na Lo waaye Modou Lo daan na Ama bettul kenn waaye Siteu amu lu muy perte ci làmb ji day ñëw jël temps du ti dara <laughs> jël temps man moom boo ko doon conseillé moom wax dëgg yàlla Siteu Siteu dama naan ko Siteu jëlee sa temps. mais mais Mbaye doole jiñ naan mu mu waaw non non différence de poids bi mun na ci nekk waaye tey ji Siteu bu doonoon Siteu tey ay bu ma ko indi woon làmb ji naan ko jëlal sa temps ne tekk toog xaar boo indi woon Lac de Guiers tey tey ko indi woon tey dama moom dama dox ci waaye tey Siteu tey moom tey su ma ko indi woon na def li mu war a def bu ne tekk toog xaar ndax tamit tey jii Siteu tey jii làmb ji jàpp naa ne làmb ji tey ji Siteu tey làmb làmb Siteu la bu Siteu jëlee temps dëgg dëgg dëgg dëgg ni ma ko gisee gis naa seen préparation xëy na nag volume ak doole du benn Siteu xale la te am na force man xam naa ko baax na Siteu bi muy mbapat koñ ñu guy ga Mansour Diop Siteu sama rakk la sama yaa leen yar booy yooyu maa leen yar sama tout tàng na am na doole biir te boo ko xoolee contre Papa Sow Siteu daan na Papa Sow jël bu bett ñëpp waaw waaw tànk yi tey bu laaj guerre bu laaj guerre songee Siteu li Siteu di bëre mbapat bëre wu ko nga jox lépp Siteu non non xam nga la la non dama ko xam xam naa la de guerre la de laale nañ ma daan ko xam naa lu mu ak lu mu la de boo xoolee lu mu gën a mën mooy défendre loo loo loo liggéey mu yàqu nga waaye Siteu doon na acteur boo xam ne bis bu la nga Siteu Sa Thiès maa ko indi te tamit acte lamb jooju nag ma wax lu leer lu garaaw a si nekk saakees soo nga jëwoon si dët këpp kat appi barki alxuraanu kariim yaa indi woon saakees maa indi saakees ma ne ko boo song sita billaahi dina la julli loo te sa heure julli jot tànk yi kenn du ko la sita moom laa dëgër bis bu song see sita laa dëgër def kat appi waaw ndax tam si si si de mën na ko. boo ko amoon tànk contre def na ko. contre Papa tam bi ko Papa Sow laa rotation ne de tournage. déggoon ma la si de ndaanaan la man moom wax dëgg yaa si ma indi si làmb ji ragal féete rek xañ a wërsëg sama rakk la sama xarit la Siteu laa faral. mais bu ñu xeexee. bu ñu xeexee Siteu Siteu mën na am dara ndax tamit arrêt gauche Siteu na ko na ko la dëggee moytu. waaw sos ba. loo am na leneen sax Siteu Siteu yi neen bëre bi moom feeñu Siteu moom daal gars yi Lac de Guiers lañ jox doole am ci Lac de dara. non non xam nga topp coowu Siteu bi fukk jeunesse bi ak xale yi ko topp ak yooyu ba gisuñu bëre bi naan Siteu ambiance waaye Siteu mën na bëre ndax Siteu mbapat la yow yow mii may wax yow xamante nañ bu baax Siteu mbapatkat la te tamit Siteu li muy bëree mbapat bëriwu ko arène li lépp lu Siteu bëree mbapat bëriwu ko arène Siteu mën na bëri lu dépassé loolu barki alxuraanu karim ndax dama ko xam te ni nag surprise la démb la taxaw te ku la xam-xam sa digganteeg Sa Thiès muy ki nga xam ne mooy Sa Thiès ak Eumeu Sène noo gisee boobu combat mbay waaw boobu Balla Gaye sax moo def erreur bi jee bëggee jël Sa Thiès da ko waroon bàyyi mu jël ko ndax Sa Thiès ay moroomam dañ ko fee bàyyi te kenn dàq koo bëre waaye Eumeu Sène baax la lii moo ko war ci làmb bëre ba tollu aas bi di may say raq loxo la dëggee moom kenn euh, kii ama seen kenn du moom dañ koy ñaanal yàlla waaye yàlla na ko saakees daan jël bu set wicc ndax saakees sama raq mais foofu combat boobu dina doy waar de waaw dina doy waar ndax noo ko euh, gisee duggoon na ci kër gi duggaat ci kër gi xanaa nag tey jii lu mu métti métti métti saakees dina bañ nag wax dëgg yàlla ama seen duggaat fa troisième fois avantage su ñaari qualité yaa saakees yaa ngi Eumeu seen tamit bëri ngeen daje ngeen ci mbapat yu bëree bëri sama lépp la sama féete la man moom bu ma waxee loolu ne Eumeu seen sama lépp la moom xam na mbaaw na dëkk ñoo bokkuli bu ma rombee bukki na may wax waaye làmb du maas magante la dabante la léegi nag fi ñu toll nii saakees bis bu jàppee ngeen Eumeu seen ngeen yaakaar ne Eumeu Sène mënul bëre doolee xale ak doolee mag du benn ah? waaw te am na rotation boo xam ne gis nga ba mu ko defee ragloos si nga koy xamee te am na puissance boo xam ne bu bu muy ñëwee soo liiwul dëgg dëgg dëgg rek. doo ko li may rek bu ko bu ko mayee bu ko mayee Eumeu Sène. non bi muy ñëw contre Reug Reug dafa yàqamte rek Sakess contre Reug Reug dafa waroon dóor Reug mu daanu ñëpp xam nañ ne Reug Reug jour boobu jekkul Sakess moo gën a moon bis waaye boobu dafa yàqanti woon ndam lañ ndax boobu dañ ko ko yeenoon ndax kër ga daam lu fa jógee woon daa am defet bu fa duggoon Sakess war ko ñëw war a ñëw génnee loolu loolu ko tax ku daan am Balla gay ñaari yoon tey Sakess war a ñëwaat ci bis boobu noonu ci wàllu xeex bi te xam nga ne Eumeu Sène gis nga mu xeex ak Tapha xeex bu metti dugg ci garde tafaatin lu kenn foogul woon ci làmb tey. waaw fii bett na ñëpp nag ama seen moom wax dëgg yàlla combat bi passé man mii di wax yow sax bett na ma ama seen bett na ma waaye def na li mu war a def jël la ñëw mu daanu waaye nag saakees bu fekkee day bagaar saakees du bagaar ak ama seen bu dee as néew ama seen ko daa xeex. waaw ama seen moo dàq xeex saakees waaye bu doonee si wàllu bëre bi. saakees saakees mun na jàngal ama seen si guddi yi lu bëre. waaw te gars yi seen dàq déggoo lu ma la wax Père Mbengue nee na fit bu ma doon bëree ngi fi xam-xam baa ngi fi waaye doole fa nekkatul gis nga léeg-léeg technique doole da koy àggale paa yaa ngi fii am nañ technique sëriñ si leen ñaanal ñëpp a waaye doole day tuxuti nit doo ko yëg de bi nag dafi nekk fekkoon ne jëmm ay yaram jigéen kenn ko doole waaw nañu fekkoon ne jëmm ay yaram bu fekkoon jëmm ay yaram jigéen kenn du ko a fi nag tey jii tey jii combat tey bii mun na feeñ si Siteu Siteu am na am nay doole biir billaahi wal kitaab seeta am na dooree bi te man li ma dama see teg lu wóor te dama am lu mu xool gis ko ci moom. loo ci gis non Siteu Siteu am nay force intérieure boo xam ne am na ko. foo maigre la. non déggoo li ma la wax noo ko yaakaarewul rek mun na fa génne te tam bisu làmb ji tey ji bu su ko foyeewul yàlla mun na ko cee may ndam. démb sa tub tànk doon na bëre te koo xam ne Mbaye Gueye sa doom la mais mën na bëre trop waaw fii sa fii sa Mbaye Gueye waaw démb loo gis li mu bëre. waaw non xale la rek a sama sama doom la muy doog a ñëw man nee naa dama sama doom la moo tax waxuma ko dara dama ko bàyyi ay xale def na li mu war a def juum na waaye bëri na ba daan waaye nag làmb moo mel noonu beneen yoon bu ñëwaatee dina xam neneen lu muy taxawee. ba doon ñëw suuf combat Modou Lo ak Boy Niang. waaw non Modou Lo Boy wax na lu garaaw signature contrat ba da koy waxee woon nee na Ama Baldé yaa gën a neex daan Boy Niang te li mu wax dëgg la Boy Niang moo gën a naqaree daan Boy Niang bukki timis la boo ko daaxee sa gétt xaar ko day ñëwaat te man làmb jooju ji fii laa la ko wax bindal bu booy ñaa daanul Modou Lo su koy Modou di gagné say avertissement na koy gagné. ah comme comme comme comme ça du ko laal. Samba Law nga waxati na de. ay mbay ngay si loolu moom fi. booy ñaa bu daanul Modou Lo bu koy gagné si avertissement la. woon foofu sax. non ma la xam naa bu baax ñoom ñaar ñëpp. xam naa loolu xam naa <laughs> Modou. xam naa lii eh booy. Modou nekk sama xarit la. mais ne woon nga kàr tamit dañuy nekk rag euh, waaye nag booy ñaa Euh, boo ñaa doole ji ëpp jëmb ji ci sa be boo ñaa doole ji ëpp jëmb nañ si def attention baax yaa ko yar te tamit yor na ngémbul wóor ne pot moom waaw booy ñaa moom Modou Lo ñoo yem seen jaar-jaar dafa baax ñi leen la waaye nag Siteu yàlla na ko yàlla may ndam jërëjëf Mbaye Guèye Junior Samba Lawbe